sànq yaa ngi wax waxi politique ñu dugg suñu deuxième partie par rapport à la politique gis nga fan yi euh, ñaari fan yi démb ruumandaat bu am au niveau de votre parti débat de bas étage euh, buñ ci seetlu ay kilifa yoo xam ne mun nañu wax ne ay image euh, parti bi nga xam ne si ngeen bopp ñoom la tey ñu yëg leen si ay wax yoo xam ne ça n'honore pas le pays yow ban lecture nga am si loolu non lecture bi nga ci am laa ci am ah ça n'honore pas le pays donc yow yaa ko wax léegi ma ciy delluwaat non seulement ça n'honore pas mon parti mais ça n'honore pas le Sénégal euh, à travers l'Afrique à travers le monde parce que la personne en question je vais la citer il s'agit de Moustapha Cissé Lo donc qui a des insultes publiques à l'égard des camarades du parti donc loolu mënuñu ko rafetlu man je trouve que dafa ñaaw parce que li ñuy distinguer ah des autres créatures mala yi mooy la capacité à se retenir mais nit ki soo meree lu la neex nga sànni je pense que nit ñu mel noonu psychanalyser leen aussi saleur leur fera du bien mm. parce que président Macky Sall musuñu woo ci xuloo musuñu woo ci xeex président Macky Sall saaga nañ ko lu nekk yekk nañ ko ko musoo leen ko dégg mu yëkkati une voix donc je pense que ñun dañu ko war a yombal liggéey bi par notre comportement. d'accord parce que Moustapha Cissé i il faut pas oublier que c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Mhm. donc c'est c'est c'est c'est une autorité dans ce pays-là. c'est l'ancien président de la CEDEAO donc c'est une autorité moi je pense que l'image que nous devons véhiculer doit être une image saine pour les générations futures parce que tey mënuñu. Euh, par exemple je vais le dire ah tëj Assane ba pare bàyyi Moustapha Cissé Lo muy saaga nit ñi nu mu ko neexee Euh, mais euh, mais yaa ngi wax Moustapha si Cissé Lo mais Farba Ngom aussi ay Yaxam Yaxam Mbaye ñoom aussi euh, beneen cas d'école la bu ñu rek war a régler aussi au niveau de la l'APR. parce que sart tey jii saaga Moustapha Cissé Lo yi leen leen gis mais riposte ñii di yàpp Yaxam Mbaye ak kii di fax ba Ngom aussi la population teg na si seen gët xam nga sànq si say du foofu laay dugalee sama yaa ngi naan kii di Moustapha Cissé Lo c'est pas n'importe qui donc tey jii ni nga xam ne. ñooñu ñooñu gouverner donc est-ce que ici au Sénégal nous sommes bien gouvernés est-ce qu'on n'est pas en danger non on n'est pas en danger ça c'est un cas sérieux et je pense que le parti a pris toute la mesure pour régler le problème d'accord le conseil de discipline s'est réuni ce matin je pense qu'il est exclu de la paire Moussawa Cissé Lo et je salue la mesure d'ailleurs tu salues la je salue la mesure. mais waaye yéen waa APR aussi gaaw ngeen dàqe parce que c'est c'est non du gaaw ngeen dàqe c'est une question très sérieuse c'est une question hyper sérieuse parce que ay yaaxam xam mbay ak ay farbaak yooyu man dégguma leen. ah dégguma leen de audio yi ñu dégg. dégg ñëpp xam nañ ko non je je termine je termine. Ah ah. xam nga nit ki mën nga xuloog moom mais dafa am ay ay autorité sacré pour man. yoo xam ne kenn warul leen tudd parce que tudd na fi ay kilifa diine tudd na fi benn kilifa diine boo xam ne tey dama ko ñaawlu mhm. comprendre mën nañ régler seen problème politique seen guéguerre politique mais bañ ci tudd kilifa diine yi tudd na ci la première dame nga xam ne ñëpp dañ ko xam ci yiw ax def lu baax mhm. képp ku am problème mi ngi dugg ci askan wi di saafara seeni problème loolu lañ ko xamee mais c'est-à-dire loolu on peut pas laisser des choses comme ça proférer vociférer des insultes publiques mais loolu man je l'accepte pas je récuse cette façon de faire de la politique si c'est ça la politique moi j'en suis pas dans cette vanne-là d'accord il faut qu'on soit clair d'accord et je dénonce cela avec la plus grande fermeté D'accord. Et je pense que même au-delà de la sanction politique, entre guillemets, si c'est une sanction politique, parce qu'il a été exclu du parti, am na ñu mu tudd ba ñu porter plainte. Donc il a qu'à vraiment amener les preuves. d'accord mais aussi euh, au-delà des des insultes yi nga xam ne gis neen kii di si Cissé Lo def gis neen aussi mu def des révélations est-ce que aussi bu ñu toogee rek di naan dafa saaga dafa saaga fàtte révélation yi nga xam ne def na ko euh, du ñu fausser aussi euh, le problème yóbbu ko si euh, benn fait divers boo xam ne rek c'est pour la perte gis neen carrément def na ay révélations par rapport ak mafia bu am si construction building administrative gis neen mu wax par rapport a surfacturation bu ñu def ci euh, wàllum construction terre bi nga xam ne ça tarde à décoller tey jii est-ce que procureur bi jotul au-delà de ces instru de ces insultes mu s'auto-saisir de ce de mu laaj Moustapha Cissé Lo nga xam ne ku ne Macky Sall ne Moustapha Cissé Lo mu ñëw leeral. non xam nga parce qu'on parle de dernier public conseil de discipline di réunir bon déglu naa benn audio mu naan il démissionne. de son poste de vice-président à l'Assemblée nationale, mais il reste député et il reste militant de l'APR. Bon, peut-être qu'il reste député par rapport à l'immunité parlementaire, j'en sais rien, mais là, c'est vraiment un cas de flagrant délit. Donc, di saga publiquement, et puis di wax. Mais ça, non, attends, attends, au-delà de saga, attends, me terminer. Attends, me Il a parlé du TR, il a parlé du building, ainsi de suite. man je suis pour une gestion sobre et vertueuse moi je suis dans cet axe-là. parce que là c'est un problème de malgouvernance et de mafia bu mu souligner. non non non da ngeen di bàyyi problème bo am ñu ne mal malgouvernance parce que ku jël ay waxam sànni ko saaga ju nekk man je pense que. il faut mais, le psychanalyser mais Moustapha Cissé Lo n'est pas n'importe qui. Mais, mais mm. c'est-à-dire yooyu la ñu war a bàyyi Sénégal ku wax say tojaange ñu ne la tu n'es pas il, il faut qu'on arrête. je pense que c'est une question très sérieuse. Mm Et là, la première mesure a été prise par le conseil de discipline. képp koo xam ne wax nañ la ci loo xam ne naka sudul noonu on est dans un état de droit il faut aller jusqu'au bout. mais Comprends? Euh, révélation yi muy wax mais il a qu'à aller jusqu'au bout aussi. le procureur dans tout ça. mais le procureur il sait ce qu'il a à d'accord le procureur il sait ce qu'il a à faire procureur du man maa koy wax li mu war a def xam na li mu war a def dans ce cas bien précis donc man man li ma gën a ñor mooy day kilifa ci réew mi mhm. xam nga te dafa am ay xale yu koy déglu mhm. te gis nga internet yi loo ci dugal dalay topp ay génération et des générations dootul fay surtout l'image du Sénégal voilà l'image du Sénégal donc mhm. loolu dafa rafetul man dama koy ñaawlu d'accord mais mais monsieur Kanté bu ñu xoolee euh, processus bi euh, politique au niveau du Sénégal est-ce que mu ñuy wax ne euh, fu mu toll nii votre parti et confronté euh, ces problèmes de positionnement et euh, de l'après yi parce que dafa mel ni comme fu mu toll nii nit yi seen ambition wala seen ay positionnement la ñuy jéem a bëgg a décliner. est-ce que am aussi lecture boobu. gis nga parti bi benn ligne moo fi am Macky Sall y a une seule ligne. Ah képp kuy bëgg a positionné wu kooku sa problème la Macky Sall a été réélu. mais l'après Macky c'est bientôt hein. mais mais l'après Macky xam nga xam nga balaa ñu naan après Macky balaa nga naan naam ne fa. balaa ñu naan après Macky on a été élu parce qu'on a présenté un programme politique au Sénégal. mais il vous reste loolu nañ ko motal ba pare. mais il reste trois ans te Macky il a fait huit. temps si je me trompe pas dugg si àll bi xool les coins les plus reculés di Sénégal war foofu yëpp soog a euh, ñëw laajte baata askan bi ñu jox ko donc tey jii loolu noonu bu ko bëggee xañ euh, ces gars qui au niveau de son parti est-ce que tey euh, genre ici si bii nga xam ne moom peut-être benn tête brûlée la wala benn Moustapha Diakhaté wala ainsi de suite ainsi de suite loolu du dem sa ba disloquer votre parti aussi. non le, le parti est, bien assis et des bases solides. bon xam nga su parti bi biñ koy samp boobu on n'était pas structuré. et vous ñu dem jëli. armée mexicaine bi aussi du armée mexicaine du armée mexicaine peut-être yow bi nekkul ci parti bi yow yaa xamul ni parti bi tëddee. Mhm. ak ñi koy gis de l'extérieur. Mm -hmm. moi je je vous dans ce parti la il une seule ligne c'est le président Macky Sall. Mm pas d'autre man de ci ligne boobu laa taxaw. c'est notre leader. moom la sénégalais yi fal moom moo war a doxal affaire yi képp ko am ay ambition politique na nga xaar bañ ci egg nga dugg ci joŋante bi soit da taxaw accompagner président bi mhm. soo ko mënul nga génn ci parti bi mais nekk ci parti bi bëgg parti bi dooleel la pour des ambitions ay positionnement parce que pour revenir à Moustapha Cissé Lo wax na ko. Mhm. j'étais là au temps du PS Ablaye Wade maa ko daaneel yi maa koy fal xawmal léegi lu mu bëgg daaneel Macky mais c'est pas comme ça. tegal sa programme politique dama dugg ci àll bi. ci programme politique boobu.